fàtte jamono ji ma koy xalamal ma ngi koy riiti la ba tey ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na ci presse bi ci journaliste yi am na tamit ñoo xam ne yekk nañu fi musiba ak mbelengaan Macky Sall jamono ji ñoo ngi koy xalamal ñoo ngi koy riiti la ci lu jëm ci wàllum politique bi tamit gis nañu ci ñoo xam ne yekk nañu fi Macky Sall musiba ak mbelengaan ku ci mel ni Bamba Fall maire bu Médina ak Idrissa Seck mi jiite parti Rewmi nag jamono ji ñoo ngi koy xalamal ñoo ngi koy riiti la yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ci xëlim ak Assane Sambo nee na lii ay feem la wala nag Macky Sall xaalis la yore yore wala ñii nga xam ne ñoo ko doon songo ba léegi ñu koy riitale dañoo amul conviction maanaam dañoo amul ay gëm-gëm wala xaalis a fa jaar yéen kaay gi de la mandat nee na bu ñu waxante dëgg Macky Sall xam ne ñooy insulteurs yi maanaam saagakat yi Macky ngi leen di jaajëfal mel ni ku leen di takkal nag ay médailles yéen kaay gi de la Tribune nee nga xam ne Macky Sall jël na leen maanaam nag Macky Sall saagakat yee ko dese ginnaaw bi mu jëlee ji ma ngi jël saagakat yi moo fi doon ñaawlu ñi nga xam ne ñooy yàq der ñi nga xam ne ñoo doon saaga di yàq ay famille Macky Sall moo fi waxoon ne am na loo xam ne mënuñu ko nangu ci réew mi maanaam nekk ci sa ginnaaw ordinateur di kacci-kacci di saaga ay nita di yàq ay njaboot loolee mënuñu ko nangu loole la Macky Sall doon wax tey Macky Sall moome nag moo dem jëli saagakat bi gën a mag di def moom interview di wax ak moom di kolasante ak moom lii nag mooy lajj dëgg lajj gu Macky Sall la ci ci gouvernance la fi doon wax ci réew mi yéen kaay gi di la vrai bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi bëgg nañu koo amal ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dégmal amul lenn lu koy tere am kenn amul kenn koo xam ne Barthélémy Dias nee na dina tere ñoom ñu amal seen mobilisation te nag jamono ji nag mbir mi bu ñu xoolee ni muy demee dañoo bëgg nag nii la la annulé mobilisation bi nga xam ne Yewwi Askan Wi namm nañu ko amal yéen kaay gii di Walf Fadjri nee na coalition Yewwi Wi kay jamono ji mën nañoo wax ne dañu mi nga xam ne moo fi wax naan waaw sama tournée bi ma doon def ci Kolda Sédhiou dama koy bàyyi ndax code électoral bi préca campagne nangam nangam Bakary Domingo Mané journaliste nee na Macky Sall lii daf koy taafantaloo xanaa lii lu bees la yéen a kaay gii de ñu koy fekk fa Birahim Seck nee na ñii nga xam ne ñooy pouvoir bi nee ñi ànd ak ñoo ngi fawee nag safara ndax ñaari baat ñett ñu naan rebelle waaw jàpp nañu rebelle si mobilisation ba nangam ak nangam ak nangam loole nag amul lenn loo xamante ni lu baax la te nag ñii war nañu koo bàyyi amul benn njariñ te lii nag safaan wa ak ko giraawaale ko a ñaari baat ñett ñu naan waaw jàpp nañu rebelle wala ñu naan diw rebelle la loolee baaxul ci réew dañu ko war a bàyyi yéen kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xibaar naan ñu bu dee am na ñenn ñoo xam ne mer nañ ba maara day taale mooy kuréel gii di ànd gësam ne ma sit saasa te ñu yëngatu ci lu jëm ci wàllu wér ki yaram ke ñoom nag ne nañu ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmala danañu amal ab marche ngir nag jàppale seen naataangoo yi nga xam ne teg nañu leen loxo yóbbu leen ci kasu bi ci giraawali gi amoon ci hôpital Maam Abdou Ba ca Tiwaawana Casamance ba at yi ñu génn xam ngeen am na nag ay nit ñoo xam ne dañu leen faa faatoona ñi njort na ñoo leen faata ni ki démb yoon yëkkati na ab dogal ku ci mel ni René Bassène ak Ampoy Bodian ñii nag tëj nañ leen li des si seenub dund maître Ciré Clédor Ly mi nga xam ne mooy seenub avocat nee na nag sub réew mi ji ni mu doxe man dama see jaaxle man maître Ciré Clédor Ly ñii nga xamante ni tamit acquitté nañ leen am na ñeent ñu ñu acquitté a mooy René Bassène moom dafa waxoon ne bu ñu ko tëjee dafay xaro maître Ciré Clédor Ly nee na nag loolee ñoom dana ñu fexe ba mu te ko ci suufa yéen kay gi di réew mi quotidien njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb daat nay inauguré école de la marine nationale ci camp militaire général Mountaga Diallo bi nekk Bel-Air yéen kay gi nee na Macky Sall daat nay nag fàttali ñi nga xam ne ñooy force de défense et de sécurité yi li nga xam ne mooy seeni devoir bi nga xam ne moom la ñu war a amee yéen kay gi nee na Sadio Mané benn tànk